di maa maa ngi dem maa ngi dem mais euh, par exemple au Sénégal on a beaucoup de mots français. Donc il y en a